والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مباكي نوغي لين دين نيو جي نيو بالإسلام بيغانا تيرد ميا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ديل سي وات ناني سي سين ايميسيون دارا سي نين كو باخو امال ريك سي اي بيس بو نيك سي وقتو وي دي ام بكتي saa su ne di ko amal ak yéen ñu nekkoon nag ci téere bi nga xam ne moo tudd tasawudu sixaar tasawudu nag noo ngi toll woon ci faslun fi kayfiyati qadaa ima faata xalfal imaam yi maanaam bu imaam sëlmalee ci julli goo xam ne da la ca raw ab rakan mbaalu ko ëpp naka ngay fayee julli googu loolu lay loolu la jàngal jotoon nañoo jàng nag li nga xamne mom moy suba ak tisbar ak takusan ak timis bu la ci imam rawé ginaaw bu sëlmali nak nga koy faye tay nak nu fa jàng bu dé gé imam bu la bu la ci rawé nak nga koy faye bismillah amal aisha on dal gé gé nak mom fa awaluha njëlbeenam maribu shafaqi mooy fàdduk shafaq xataan ci lu dog mooy lu amul werante alal muttafaqi ca lañu ñu dëppoo li sulusi ba ca sulus ba al awwali bay aji njëkk min daakal bi tukkee ca googele fàddu muxtaaruha muxtaaram nag yaxtaaruhu dana ko tànn kullu labibin jépp aji xellu moom nag balaa mu lay wax naka ngay faye waxtu julli julli googi dalay wax li nga xam ne moom mooy waxtoom fi mu tàmbalee ak fi mu yem muxtaarum gee mi ngi tàmbalee ci bu shafaq fàddoo shafaq nag waxoon nañ ko ci bind bi weesu mooy ginnaaw bu jant bi sowee ya fam sowee dangay gis ne ay xonq-xonq yu fa des xonq-xonq yooyu nag bu demee baraaf te ñu waxoon la ne bu demee baraaf foofu la muxtaarum timis yam xamal ne nag foofu muxtaarum timis yamoon foofu la muxtaarum gee daal di tàmbalee muxtaarum gee nag foofu lay tàmbalee ba li nga xam ne moom mooy li dale ci foofu mu tàmbalee ba fajar boo ko defoon ñetti xaaj maanaam boo doon xool ñaata waxtu la nga diviser ko trois xamal ne jàpp xaaj bu njëkk bi bu jeexee foofu la muxtaarum gee daal di yem moom la wax li sulusil awwal sulus mooy ab ceer mooy loo xam ne danga ko xaaj ñetti xaaj nga teggi ca benn loolu mooy sulus sulus bu njëkk bi maanaam li dale fi nga xamee ne foofu la muxtaarum géemi daal di tàmbalee muy bu shafaq ndax dégg nga mu ne min daakal maxib li dale ci fàddu googu ba fi nga xamee ne foofu la ah, foo la fajar di xare da ngay xool ñaata waxtu la bu ko defee nag nga daal di koy diviser trois xaaj bu njëkk bi bu jeexee rek nga xam ne muxtaarum géema daal di daal di lay jeex bu ko defee nag daruur yam tàmbalee foofu ba fajar fenk kon loolu mooy waxtu euh, li nga xam ne moom mooy gee kon itam foofu mën naa tey ndax léeg nga dégg ñu ne la gee moom euh, waxtu wu la neex mën nga koo julli euh, li fekk fajar jotul ci kaw nag amoo ngànt boo amul ngànt moom xamal ne sañoo sañoo xoole ba waxtu muxtaar mi daal di jeex muxtaar mi nag ni ñu ko waxee woon rek moo dale ci fi nga xamee ne foofu la shafaq fàddoo maanaam shafaq muy xonq-xonq yi nga xam ne mooy des ci asamaan si fi nga xam ne foofu la jant bi sowee xonq-xonq bu demee ba nga xam ne gisatoo ko foofu la muxtaarum gee daal di tàmbalee léegi nag muxtaaram mi ngi yem ci guddi gi boo ko xaajee ñetti xaaj maanaam li dalee ci fii safaq fàddoo ba nga xam fajar boo ko defee ñetti xaaj xaaj bu njëkk ba bu jeexee rek xamal ne foofu la muxtaarum gee daal di yem daroori yam tàmbalee foofu nag ba fajar kon gis nga ne li nga xam ne moom mooy timis ah, darooriyom lépp dafa dugg ci biir waxtu gee kon ñaari euh, jul ñaari waxtu la yoo xam ne dañoo bokkaale ay waxtu ni nga xamee noonu la tisbaar ak takkusaan bokkaale woon ak ay waxtu noonu la timis ak gee bokkaale ay waxtu kon loolu mooy waxtu wi lim daane la way bi nag mu ne muxtaaruha yaxtaaruha kullu labib maanaam muxtaar mi képp ku am xel rek dana taamu julli ca muxtaar ma maanaam ju gépp julli gu mu mën a doon rek su fekkee amoo ngànt amoo sañ-sañu yeexe ko ba muxtaar ma jeex ndax boo ko defee danga da cee am bàkkaar su fekkee ne nag danga ko euh, ngànta tax boo jullee ca daroori yu ba doo ci am bàkkaar kon ñëw ci bu la ci imaam rawee nag nga koy faye fa in yafut ka ndeem raw na la rakaatun benn rakaa min ha jigee faqum jógal wala tukabbir te bul kàbbar umma na nga jublu umma dikrillaahi ndayi alquraan yàlla ji te mooy fatiha wa suuratan aku saar jëhran ci biral wajlis te nga toog baxdaha ci ginnaaw ba walta tashahad te nga taaya waltu sallim te nga sëlmal boo ko defee takis kon nga ñaw nee na gee buñ la ci rawee benn rakan kon li nga xam ne moom mooy rakan bu njëkk ba nga fekkewul bu imaam sëlmalee ba nga jóg di fay boo jógee bul wax allahu akbar da ngay jóg rek daal di taxaw bu ko defee nga jàng faatiha ak saar ci rakan boobu yi ndax moo nekkoon rakan bu njëkkub imaam kon faatiha ak saar nga cay jàng te biiral ko ndax gee la bu ko defee nag nga ñëw daal di toog foofu daal di taaya daal di sëlmal ndax sab ñeenteel la kon noonu lañ koy fayee su fekkee benn rakan mu la ci raw wa yafut ka ndem raw na la rakan taha ñaari rakanam ya faltaqum jógal mukabbiran mbir mu ngay aji kàbbar wajaxate nga biral bi suuratin ci aw saar te umu woo da ko jublu min baadi ummi dikri ci ginnaaw nday alquran te mooy fatiha wal juluusu jataay ba nag baynahuma ci seen diggante manaahu tere na ko ar kilifa ga li kaw niha ngirum nekkam saalisatan di rakkam ñetteel nee na su fekkee ne li nga xam ne moom mooy gee dañu leen ci raw li nga xam ne moom mooy ñaari rakaa kon ñaari rakaa yu mujj ya moom nga fekkee yu njëkk ya moo la raw bu ginnaaw bu imaam sëlmalee ba nga jóg di ko fay waxal allahu akbar da ngay wax allahu akbar bu ko defee nga rakaa boobu nga jàng ca faatiha ak saar daal di koy biral ndax moo nekkoon rakaa bu njëkkub imaam léegi nag boo ñëwee foofu mu nekk sam ñetteel bul toog foofu ndax jataay boobu dañu koy tere ndax sam ñetteel la kon jógal nga indiwaat rakan boo xam ne da nga jàng fatiha aku saar ndax moo nekkoon ñaareelu rakan imam bu ko defee nga daal di ñëw nag mu nekk sam ñeenteel nga daal di taaye sëlmal kon noonu lañ koy fayee su fekkee ne dañu la cee raw ñaari rakan mu ne waxay suma yefut ka foofi xamee ne raw na la min ha ci gee baadama qad sallama ci ginnaaw ba imaam sëlmalee salaasu rakaatin ñetti rakaa faqum jógal bil ummi ànd ak fatiha wa suuratin ak saar wa jaxar huma te nga biral leen ñoom ñaar daa fahmi mbir mu ngay boroomuk dégg min xayri takbiirin ci lu dul ak kàbbar xubaylu ca bu njëkk waqudan te nga jekki maanaam te nga toog wa aati te nga dikkee tashahudan taaya baada jalsatin ci ginnaaw ab jataay waqum te nga jóg baadu ci ginnaaw ba wa ji te nga dikkee bi rakaatin ci ab rakaa bi ummi kitaabina ànd ak ndeyi sunu téere bi wa suuratin ak saar xum jógal nag foofu laata umm laata umm bul jublu li jalsatin ñel ab jataay foofu bu fa toog wajaxar na nga biral waqumte nga jóg baadu ci ginnaaw ba waqumte nga jóg baadu ci ginnaaw ba wa ji nga dikkee bi rakaatin ci ab bil ummi ànd ak ndey alquran sirran ci yelu boo ko defee kon nga génn ca fayka gee buñ la ci rawee ñetti rakan kon rakan bu mujj ba nga fekkee kon ñett yu njëkk ya ñoo la raw bu imaam sëlmalee ba nga jóg di ko fay boo jógee bul wax allahu akbar ndax julli googu benn rakan nga ci am bu ko defee nag nga daal di tàmbalee ca rakan bu njëkkub imaam ba lam ca jàngoon mooy faatiha ak saar te biral ko bu ko defee nag nga ñëw foofu toog ndax sam ñaareel la boo toogee foofu daal di taaye bu ko defee nga daal di jógaat indi ñaareelu rakan imaam ba ca topp moom nag ma ngi ci jàngoon faatiha ak saar daal di koy biral ndax gee la bu ko defee nag nga ñëw foofu bul toog nag foofu ndax sam ñetteel la moo nekkoon ñaari raka imaam waaye nag sam ñetteel la bul toog foofu bu ko defee nag nga indi ñetteelu raka imaam ba nga daal di cay jàng faatiha kase ndax faatiha kase lañ ca jàngoon bu ko defee nga ñëw nag toog mu nekk sam ñeenteel nga daal di taaye sëlmal kon noonu la ñuy fayee li nga xam ne mooy gee buñ la ci rawee ñetti raka kon boo seetloo ni euh, ni ñu ko waxee woon rek bu imaam sëlmalee ba nga jóg di fay fa ngay tàmbalee mooy rakkaan bu njëkk ba lam ca jàngoon nga jàng ko ca rakkaan ñaareel ba lam ca jàngoon nga jàng ko ca maanaam noonu ngay toftalee njàng mi waaye nag fi nga war a toogee ak fi nga war a jóge loolu mi ngi toll mi ngi mi ngi nekk rek ci kem yow fi nga fi sa julli toll boo amee ñaar toogal bu fekkee it sag julli mat na sëlmalal bu dee bu dee timis la ñett nga daal di sëlmal bu dee gee ñeent nga daal di sëlmal nga xam ne yow daal fa imaam toogoon ak fa mu toogul woon yow doo ko bàyyi xel maanaam yow foofu mi ngi aju ci yow say say raakaan fi mu toll waaye nag boo dee boo dee fay da ngay xool na ko toftalee ca njàng ma da ngay tàmbalee ca bu njëkk ba teg ca bu ñaareel ba teg ca bu bu fekkee ñett moo la raw comme dal non ni ko waxe rek manam dang koy toftale ci kem na ko toftale ca njàng lol dana yomb kon non lañuy fayé rek gee mu tek ci ne waxalam na nga xamne bi bi al fuqaha ci naka way deg ya fiq sawaru melal nañu rak'atin jotu rak'a ala ma ci kaw la nga xamne qarraru saxal nañu ko bi an yumakkina ci bu dëgëralee al yadayni yari loxoya duqti daayin boroomu min rukbatayhi ci yaari bati womam ma imamin and imam muqtadan bari buñu roy neena na nga xamne ñi nga xamne dañoo dégg fiq bu ñuy melal ne julli gi raka bi jot nga ko boko bëggee xam mooy raka bépp raka boo xam ne fekkee nga ba ñuy rukon nga xam ne fekkee nga ba imam di rukon nga nga ànd ak moom rukon jàpp ci say bëtiwoom nga xam Euh, euh, rukon ba rawu la jàppal ne rakan boobu raw euh, am nga ko maanaam rakan boobu boo koy wàññi da nga koy wàññiwaale ci say rakan kon boo ñëwoon ci rakan bu mujjub imaam nga fekk mu rukon nga xam ne yow kàbbar gu njëkk ga fekke woo ko muy kàbbaru armal bi su boobaa boo defee kàbbaru armal ba noppi da ngay rek daal di rukon ànd ak moom su fekkee am nga jàpp ci bëtiwoom yooyu rek xamal ne rakan boobu rawu la bu ko defee boo jógee di fay da ngay wàññiwaale rakan boobu ndax rawu la kon boo bëggee xam ba xam ah, rakan bi raw na la wala rawu la mooy bu mooy ba xam da ngay xool ba xam fekkee nga jàpp ca bëti wóom ya soo fekkee fa ñuy jàppee ca bëti wóom ya rek maanaam fa ñuy rukkoon rek fa imaam di rukkoon rek boo ko fekkee xamal ne rakan ba rawu la am nga rakan boobu kon boo koy wàññi da nga koy wàññiwaale ci seen rakan mu ne amal la di ndaal ka nga xam ne nag lam yajit amut at tamkiinaa dëgëral ga فليس مدركا ديت مي اجي جوت لها نيل راك راك عبا يقينا تلور وقل وخل لمن نيل كان خمني ادرك جوتنا امامه اماما في تشهد كتايا نيكو قوم جوجل وابتدي تنغا تامبلي وات تنغا تامبلي صلاتك سك جولي نانا يعني كيب كو خمني نك فكي ووت ci rak ci ci ci ben rakam bo xamne fekke wut bañuy japp ci ba beti wam ya manam fañuy rukua ay fekke wuko na xam ne rakaa boobu raw na ko bu ko dee wàññi boobu du ko wàññiwaale ci ay rakaam kon na jàpp ne boobu raw na ko kon ci misaal boo ñëwoon fekk imaam nekk ci rakaam ñaareelam ci li nga xam ne moom mooy gee su boobaa su fekkee ne dafa rukon ba siggi nga nga koy soog a nga ngay soog a dugg ci biir julli gi kon ñaareelu rakaam boobu bul ko wàññiwaale ci sa julli kon dangay ngay mën ngaa wax allahu ba daal di koy fekk fa mu nekk moo xam da moo xam ma nga ca sujjóot ba moo xam fu mën a toll bu ko defee nag rakaxa boobu doo ko wàññiwaale ndax fekkewu ba ñuy jàpp ca batiwam ya kon bu ko defee nag bu imaam sëlmalee da ngay jàpp ni ñaar nga fa am rakaxa bu ñaareel boobu yi nga xam ne foofu nga fekk imaam dangaa fekk mu rukon ba noppi kon amoo ko amoo amoo foofu lu mat ab rakaxa kon doo ko wàññiwaale kon gépp gépp bépp rakaxa boo xam ne fekkewoo rukon ba rek kon rakaxa boobu daboo ko rakaxa boobu amoo ko doo ko wàññiwaale ci sa julli mu ne képp koo xam ne nag dafa fekk imaam di taaye mu daal mu dal di tàmbali ak julleem daal di wax allahu akbar daal di ànd ak imaam daal di taaye imaam bu sëlmalee bu rakkan boobu bu mu ko wàññiwaale ndax amu ko kon buy jóg buy jóg day wax allahu akbar daal di mel ne julligu koo xam ne julli julli boppam koo xam ne da koy tàmbaliwaat day mel ne ah, day mel ne amut ah, man man nga ne rek amut ci julli ga ab rakkan dajaa tàmbalee rek bu ko defee na jog indi ñeenti rakan yu mat sëkk su fekkee gee la bu dee timis la mu indi ñetti rakan bu dee euh, suba euh, mu indi ñaar bu wala takusan mu indi ñeent ba kon képp koo xam ne rek fekk nga euh, imam rukon ba sigi kon rakan boobu mu ko kon bu bu imaam sëlmalee su fekkee rakan bu mujj ba la fekkee kon bu imam sëlmalee na jog dal di wax allahu akbar dal di julli julli gu mat bu mu wañwaale loolu ndax matul ab rakaa kon loolu nañuy fayee noonu la ñuy fayee julli yi jàng nañ bu la rawee ci timis bu la rawee ci suba jàng nañ bu dee tisbaar bu dee takkusaan bu dee timis bu dee kee bu ci nekk rek jàng nañ ko jàng nañ it naka lañ naka ngay xamee ndax rakaa bi dab nga ko wala dëboo ko kon mbokk yi ñu taxaw foofu rek ba aljuma bii di ñëw incha allah ci waxtu wi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ci lay doore daara ramani moo dikki nga neel daara ray mi moo taxa jóg man di dem daara yowmal qiyaamate ñëppay xam lu dib daara